asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu seen flash saa su ne mbégte ak kontante dañuy ànd ak yéen ci seen ëttu xibaar di seen flash café tey nag li ñuy waxtaanee mooy euh, suñu natango enquête ñoon nag ñoo ñuy xamal ne que toll na ci fukk ak juróom-ñeent euh, émigré yi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañ ñoom nag lañ jàpp ci euh, frontière bi nekk diggante Mauritanie ak Maroc ñoom nag bu ñu leen téye ak léegi def na juróomi fan ba tax na ñi nga xamante ne ñooy émigré Sénégal sénégalais ñoo ngi yuuxu walo di sàkku ndimmal tamit ci ki nga xamante ne mooy euh, njiitu réew mi. ñu dem ci euh, banque mondiale FMI banque islamique ak euh, banque bu africaine de développement ñoom tamit euh, jël nañ ay matuwaay maanaam dakkal lépp li nga xamante ne mooy jumtukaayu chèque seen diggante ñoom ak seeni client ñoom nag li ñu jël li ñuy li waral loolu mooy wàññi li nga xamante ne mooy jokkalante gi nga xamante ne moo doon daw seen diggante ak ñooñu ne di seeni client ñu jëm ci mbirum euh, coronavirus démb nag dafa am benn moodu moodu ba nga xamante ne bi mu euh, duggee fii ci Sénégal def na ñeenti euh, fan kooku nag di moodu moodu bi mu ngi wuyoo ci turu Jibril Diallo mu ngi dëkkoon fële ca Wakam démb nag amoon na ab waxtaan euh, ñooñu nga xamante ne mooy suñuy naatangu waa RFM moom nag dafa porté ab plainte ñi nga xamante ne mooy ay dëkkandoom ndax mu ngi ñuy xamal ni que bi mu ñëwee ak tey dëkkandoom yi may ñu ko jàmm may ko salaam ñoo ngi koy toppee ne dafa ànd ak euh, loolu nga xamante ne mooy doomu jàngoro jooju noonu di ko wax ne xëy na bu ko amul tamit am na ay signes yoo xamante ne war na koo mën a foofu foofule moom nag nee na fu mu toll nii njabootam euh, mënatuñu sax génn ci mbedd bi ndax bët yi ñu leen di xoolee. kooku di euh, Serigne Mbaye Sy Mansour moom nag dafa jël euh, dogal euh, li nga xamante ne mooy dakkal lépp li nga xamante ne mooy jullite juma foofu noonu ca Tiwaawan ak juma yi nga xamante ne ñoo ko wër moom nag moo ñuy xamal li nga xamante ne mooy xadaratul juma ak julli juma ci boppam lépp la dakkal ngir jàppale jiitu réew mi ci xeexu doomu jàngoro jooju nga xamante ne ñoo ngi koy xeex. ba tey ci wàllu woowu yi euh, ki nga xamante ne mooy imam bu grande mosquée bu Dakar di wuyoo ci turu Alioune sàmb moom nag fu mu toll nii mu ngi ñuy xamal ni que moom du euh, dakkal bépp jullite euh, aljuma foofu noonu ca jumaam ndax moom sax ci boppam yëkkati na ay kàddu di xamle waa Sénégal askanu réew mi. di leen xamal ne que jullite juma dafa nekk loo xamante ne euh, yàlla ci boppam moom moo ko santaane lii nga xamante ne euh, président Macky moom la wax moom nag du ko ci fekk si ba tax na moom nee na li muy def mooy julli euh, chaque aljuma foofu noonu ca juma ji ba pare di dina ñaan dina sàkku ñaan ci li nga xamante ne mooy mbirum coronavirus jóge foofu nga xamante ne mooy suñu dëkk bi le di Sénégal comme saa su ne dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy euh, fait divers fait diver nag tey lim ñu indil mooy ab euh, benn xale bu góor bu toll ci fanweeru at moom nag lañu fekk ñu faat ko fële ca corniche euh, ouest bu Dakar moom nag anam yi ñu ko fekkee xaw na doy waar ndax dañoo fekk moom ci boppam ñu rendi ko ba pare takk ay loxam. ñi nga xamante ne ñooy suñu naataango RFM ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñoo jox xibaar boobu noonu ñoo ngi xam ne que waa police ñoo ngi wéyal seen enquête ba tax na ki nga xamante ne moom la ñu faat ba léegi mënaguñoo xam moom mooy kan.

kii di Alioune Cissé ak euh, Augustin Senghor ñoom nag ñoo ñu ko xamal ne ne mosuñoo yëg lu mel noonu. ba tax ne ki nga xamantene moy Mama yassine Mar ma yassine Mar nak mom moy directeur technique bu équipe nationale mom tamit nee musul yek wala musul gis tamit ben contrat bo xamantene mom signé nako mom fële ci Amiens. suñu mbokk internet yi comme ça su ne non kay defé tay nak fi lañuy ndax capé xibaar yi di len jox dig daje euleuk inshallah même heure même chaîne. comme nañ koy la laata loolu mën ngeen a euh, xibaaru ci seen euh, site boobu nga xamante ne dina affiché wu foofu ci seen bas de l'écran di www.senflash.com